سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب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 Euh, ñu ngi ñëw tey jàng xadisab juróom benneel ci arbaina nawawiya limaam nawawi radiallahu anhu an abi abdillahi nucman ibni bashir radiallahu anhu qaala samitu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul inna alxalaala bayinun wa inna alxaraama bayinun wa baynahuma umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhunna kathiru min annaas faman ittaqa shubuhaati faqad istabra'a li diinihi wa irdihi wa man waqaa fi shubuhaati waqaa fi lxaraami karraaci yarcaa xawla alximaa yuushiku an yartaca fiihi alaa wa inna likulli malikin ximan alaa wa inna xima allahi maxaarimuh alaa wa inna fi ljasadi mudgatan ida saluxat wala ida salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wa hiya alqalb xadiis bi Noomar ibn Bachir moo ko solo jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa muy saxaaba buñ xam àndak ne yonent bi sallallahu alayhi ba muy gaañu sax xale la ndax bi yonent bi di gaañu juróom-ñetti at la am loolu nga déggee ci ne yonent bi daf doon jàngal ndaw ñi comme ni muy jàngalee mag ñi majlisam jaglewu ko woon mag ñi kese bàyyi ndaw ñi waaye ñëpp la ci boole woon ndax su fekkee ne kii juróom-ñetti at la mën a am. solo xadis jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ne majlis boobu majlis buñ ubbi woon la mu ñeel ñëpp ndaw ak mag a ci xadis bi boroom xam-xam yi wax nañ ne mën nañ koo jàpp muy rubu diin maanaam diine ji boo ko xaajee ñeenti xaaj mën ngaa jàpp ne xadis bi benn xaaj la ci xaaj yooyu am na sax ñu wax ne sulusu diin comme imaam Ahmad ñu ne diine ji lépp boo seetee daanaka dafa tënku ci ñeenti xadis bi ci njëkk mooy innamal amalu binniyaat boobu rubu la ñu ne man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa boobu beneen rubu la inna alxalaala bayinun wal xaraamu bayinun ñu ne boobu tamit beneen rubu la mu des rubu ñeenteel bi ñu wutee ci am ñu wax ne mooy ad diinu nasiha diina laaye biir la am ñu ne mooy daa maa yuribuka ilaa maa laa yuribuk li la wóorut bàyyi ko jàpp ci li la wóor kon ci loolu mën nañ cee xamee ne xadis bi xadis bu am makaana la ci lislaam xadis bu màgg la woykat yi sax wax nañ ne umdatu diin indana kalimatun arbaun min kalaami xayril bariya ittaqi shubuhaat wazhad wa daama laysa yaanika wa amalan bi niya way yooyu moo tënk diine ji maanaam ñeent baat yoo xam ne jëlee nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa ji lépp mi ngi ci biiram bu ciy njëkk mooy ittaqi shubuhaat na nga ragal nanga teet lënt yi yi lënt mbir yi nga xam ne dafa lënt borom xam-xam yi waxuñ ci wala yi nga xam ne ni xam-xam dëgg mooy tax nga xam ndax dafa xaraam wala dafa dagan yooyu nang ko teet boo teetee loolu ba pare na nga am zuhd mooy waraaw ba tey boo paree nga bàyyi li nga xam na ni sa yoon nekkut ci te lépp looy jëf nga jëf koog yéene ñeenti ñeenti mbir yi daal képp ku ci nekk mel na ni yow yaa ngi jëfee lislaam lépp mooy ñeenti xadis yooyu yonent bi nag sallallahu alayhi wa yi lu tax ngay gis léeg-léeg riwaay di uutee ki indi ko ci lafz bi kii indi ko ci lafzu bële kii kële indi ko fële kii ne solo naa ko kii ne solo naa ko kii ne solo naa ko léegi-léegi fukki nit dinañ solo xadis jëlee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam te duñ bokk jotaay buñ ko solo ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam da daan toog nit ñi di ñëw di ko laaj laaj buñ ko laaj nag tontu bu tontu rek xadiis la bokkut ak ñun moom xadis yi ngay gis nii yëpp ay laaj yuñ ko laaj la mu tontu ci comme nit ñëw ne ko lan mooy lu xaraam ak lan mooy lu xalaal yonent bi daal di wax ne inal xaraal inal xalaalu bayyinun wal xaraamu bayyinun daal di leeral ñu laaj ko ci leneen mu leeral léegi nag dangay gis ne benn laaj ay nit ñu bëri mën nañ ko koo laaj nit mën na benn laaraab mën naa jugee fële ñëw ne ko yonentu yàlla lan mooy nangam yonentu bi tontu ko ne ko nangam ak nangam ak nangam la jotaay boobu am ñu fa nekkoon ñooñu daal di solo loolu toxal jëlee ci yonentu bi sallallahu alayhi beneen bés keneen ñëw laaj ko même laaj bi yonent bi tontuwaat ko même tontu bi waaye baat yi mën naa ute ndax booy nettali dara sax ni ko nettalee tey suba boo koy nettali baat bi mën naa ute liñ bañ mu ute rek mooy maanaam yi maanaam yi moom bu utee bu fen lay doon nga wax lii tey suba nga wax lee waaye nii laa ko waxee comme nga ne ma ah sëñ bi kañ nga ñëw ma ne la ñëw naa biig ci guddi waaw keneen laaj ma ne ma sëñ bi kañ nga ñëw ma ne ko ñëw naa démb xam nga baat yi uute na ki la biig ci guddi laa ko wax kii mën a ko démb waaye biig biig ci guddi mooy démb rek waaw maanaa bi daal bu mu uute bu uutee rek bu boobaa yàqu-yàqu am na wuutee wuutee lafz yi alfaaz yi wuutee ci hadis yi yëpp loolu moo koy indi da ngay gis borom xam-xam bi solo ko ci baat bi kii solo ko ci baat bi kii solo ko ci baat bi léeg-léeg sax ñu ne aw kama qaala wala comme lu mu wax rek sallallahu alayhi wa sallam hadis bi dafa wax ne innal xalaala bayinun wal bayi bayinun mu ne li dagan innal xalaala naka lu dagan bayinun aji leer la lu leer la ñëpp xam nañ ko lu dagan lu leer la ñëpp xam nañ ko comme julli lekk lekk yàpp naan euh, dimbale nit yii yëpp takk jabar yi yëpp lu dagan la loo xam ne nii ñëpp xam nañ ko kenn soxlawul kenn jàngal la ku nekk xam ne ne lii dafa daga wal xaraamu li xaraam itam bayyinun lu leer la kenn uti wu ci rey nit mbiyaalo naan sàngara lor nit def musiba yii yépp boroom xel xam na ne dafa xaraam soxlawut kenn di la ko jàngal waaw bàyyi wax wax feneen ne lu baax daal mooy loo xam ne boo koy def doo ragal ku la ca bett doo ragal ku ko doo ragal ku ko nettee ku ko nettali lu bon itam mooy loo xam ne boo ci nekkee bëggoo ku la ci gis te bëggoo ku ko nettali waaw kon li yonent bi wax rek la wax foofu maanaam li dagan lu leer la ñëpp xam nañ ko li xaraam itam lu leer la ñëpp xam nañ ko mu des diggante bi nga xam ne mooy problème bi mooy mu ne wa baynahuma aji nekk la ci diggante seen ñoom ñaar umuurun ay mbir yoo xam ne mushtabihaatun way lënt lañ laa yaalamuha xamu ko kasirun ñu bëri min annaasi ci nit ñi diggante lu dagan ak lu xaraam am na ci ay mbir yoo xam ne ni mbir yu lënt na nit ñu bari xamuñ ko am na ci yoo xam ne borom xam-xam yi xuus nañ ci am ci utee ñii ne lii ñii ne lële am na ñoo xam ne borom xam-xam yi dañ cee taxaw waxuñ ci sax yi nga xam ne <clears throat> borom xam yi dañ cee xuus am ci wutee am na ñu ne bu la neexee nga jël ci waxi ku la neex ndax boo royee borom xam-xam rek yow danga nga yàlla mucc nga waaye yi nga xam ne nag borom xam-xam yi dañ cee taxaw waxuñ ci ñu ne loolu nga taxaw ci moo gën ndax boo ci xuusee mën ngaa xuus ci lu xaraam wa baynahuma umuru mushtabihaat mushtabihaat yooyu nag moom lay alquran di wax ne e, ci alquran bi am na muxkam am na mutashaabi muxkam mooy loo xam ne nii dafa leer nañ ku jàng arab tuuti mën ngaa dégg comme kul wallahu ahad loolu ñëpp xam nañ ko mutashaabih nag mooy loo xam ne nii dafa am lënt force nga xóot ci arab jàng naxu jàng balaa xam ba dee xam lu nekk soog a mën a dugg pour xam atte bi lan la yooyu nag nga xam ne nii dafa xóot yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom lay jàngale na moytu ko daal moo gën loolu mooy waraaw waraaw mooy nga dem ba bàyyi loo xam ne nii lor nekku ci ngir nga ragal a àgg ci loo xam ne lor daf cee nekk moom lay alquran di wax ne minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitaabi wa uxaru mutashabihat muhkam yi ci alquran lu leer la ñëpp xam nañ ko mutashabihi nag problème yëpp fa la nekk yonent bi sallallahu alayhi ne wa man waqaa fi shubuhaati képp koo xam ne tàbbi nga ci loo ci loo xam ne dafa lënt waqaa fil xaraami amaana mu tàbbi ci lu xaraam waqaa doo wax ne tàbbi na ci lu xaraam amaana bu mu tàbbee ci lu xaraam képp koo xam ne nii dugg nga ci loo xam ne nii lu lënt la mën naa am loolu bijj la yóbbu la ci loo xam ne nii dafa xaraam ngir jege gi nga xam ne ni dafa jege xaraam moom lay olof di wax ne dana màtteem bu mat du màtte bu ko jox sa loxo ndax loolu moo gën a wóor loolu mooy waraaw li nga xam ne nii lënt la ba xamoo ko nga bañ cee àgg moo gën yonent bi nag daal di ko mellal ne que raayi yaraa xawla alxima mu ne raa yi dafa mel ni aji sàmm boo xam ne ni yaraa dana sàmm ay juram xawlal alxima ci wëti place buñ garde wala place buñ aaye place boo xam ne buur da koo defar mu nekk réserve ne bu fa kenn àgg wala ah fa man ittaqa shubuhaat fa man takkal shubuhaat képp koo xam ne teet nga woy lënt yi faqad istabraa dencalu na li irdihi ñeel deram wa diinihi ak diinam képp koo xam ne daal mu fexe nga yàlla dimbale na defal la tawfiq ba nga mën a teet li nga xam ne nii dafa am ay lënt-lënt mu ne su boobaa yow ñoŋal nga sa diine ñoŋal nga sa der ndax li nga xam ne leeru daal ñàkk cee àgg moom moo gën a xóor wa man waqaa fi shubha wa man fi shubhaati képp koo xam ne nag tàbbi nga ci li nga xam ne nii dafa lënt waqaa fil xaraami amaana boo tàbbee ci lu xaraam képp koo xam ne nag dëgër nga bopp bañ ne ah ñu ne la fii ku fi nangam dana nangam nga dëgër bopp ne ah dañuy wax rek dem lu la dal bu boobaa ko teg sa bopp moom la ñuy wax ne maamalaaj daan na wax ne xale bu rëddee benn rëdd ne rëdd ku ko jéggi dee mu ne dóor ko ci bopp rek ne ko yaa mën fen waaye bu ko jéggi nag parce que xamoon ndax yàllaay wax ci làmminam wala déet subuhaat yooyu nag boroom xam-xam yi wax nañ ci ay wax am na ñeenti wax yoo xam ne nii boroom xam-xam yi indi nañ ko ci mbiru subuha yooyu ñu ne ci biir subuha yooyu am na subuha yoo xam ne nii bokk na ci waraaw ragal yàlla dëgg nga ba ko nga moytu ko maanaam bàyyi ko daal seetal sa der la comme boo demee ci réewu arab yi am na ñoo xam ne ba léegi dañuy nekk di werante ndax cigarette dafa xaraam wala dañ koo sib waaw am na ñoo xam ne nii ñoom ba léegi ñu ngi werante loolu ne cigarette dafa xaraam dañ koo sib yow bokk na ci waraaw la yàlla mayee waraaw nga bañ koo jëfandikoo ndax lislaam lépp loo xam ne nii daf koo tere luy lor doomu aadama ngi ci lislaam terewut dara loo xam ne nii njëriñ kese ci ne waaye lii lore rek moom la yàlla tere lépp lum tere rek luy lor doomu aadama ngi ci te cigarette ku nekk xam na li nga xam ne nii moom lay def li muy rey sax feebar yi nit ñi gën a ragal sax rey ko ci àddina bi ñu ne am na subha boo xam ne ñaareelu wax bi ne am na subha boo xam ne dangay ngay nattale ndax xaraam la gën a jege wala dagal la gën a jege su fekkee dagal la gën a jege nga jël bu dee xaraam la gën a jege nga bàyyi ñetteeli wax bi ne kom tey nit mën ngaa toog ñu indil la lekk ci place boo xam ne yow xamoo fa lekk biñ la indil noonu borom xam-xam wax nañ ne mën nga cee lekk ngir lan ne cosaani mbir yëpp lu dagan la kom cosaani mbir yëpp lu dagan la mën nga lekk ci lekk gi ndax dagan la gën a jege ci xaraam waaye nag soo leerlu woon moo gën maanaam soo leerlu woon ba xam liñ la tegal lan la moo gën waaye su fekkee ne tamit def nga bële nee nañ ba léegi mën naa am sharia du topp ndax mbir mu nekk dañuy xool rek ndax dagan la gën a jege wala ci xaraam ñu jox ko atte boobu ibnu mas'ud nag moom dafa wax ne yonentu bi sallallahu alayhi wa benn nit mës naa defar yàpp ba mu baax indi ko ne lii yàpp bi dama koy saraxe damay saraxe yàpp bi benn saxaaba la ko doon sarax ne yàpp bi sarax la ñeel Bariira saxaaba yi bu jigéen la yonent bi sallallahu alayhi du lekk sarax yonent bi daal di wax ne huwa sadaqatun laha wala na hadiya waaw maanaam mbir mi sarax la pour ki ko bëgg a sarax waaye man su ma demee bu koo lekk addiya lay nekk ci man ndax duma lekk loo xam ne nii sarax la Ibnu Mas'ud ne kon ci bunt boobu mën nga see jàppee ne mbir àtte mën naa soppeeku ndax kii bi muy yëkkati ñam bi di ko yóbbu sarax la ci yéene waaye yonent bi moom mi ngi ko jël comme hadiya ñeenteel bi ñu ne shubhab ñeenteel bi mooy nga jëfandikoo loo xam na nii xamoo cosaanam ni kii alal goo xam ne nii xamoo ba xam na cosaan bi dafa xaraam wala dafa dagan xam nga nit ku jugee ci biti ñëw indi xaalis jox la yow lim la jox xamoo ndax dafa dagan xamoo ndax dafa xaraam waaye loolu li wér mooy yow mën nga koo jëfandikoo parce que bu njëkk jamono bu njëkk dañ daan wax ne alxalaalu maa urifa asluhu wa aslu aslihi lu dagan mooy loo xam ne xam nañ cosaanam xam cosaani cosaanam waaye jamono di dox di dox di dox ba atte boobu soppeeku léegi ñu ne alxalaalu maa juhila asluhu wa aslu aslihi fi ne nag lu xara lu xalaal mooy loo xam ne nii réeree nga cosaanam réeree nga cosaani cosaani loolu parce que mënoo nekk luñ la indil nit ñëkkati teraangaam jugee fële ñoo jox la nga ne ko yow looy liggéey xaalis bi nan nga def ba am ko di ko enquête bu yàggee yëf yi soof ko mu amaana sax du duggati sa kër waaye comme moom ñëw na jox la te lim la jox réeree nga ko xamoo fan la jugee rek nee nañ su boobaa lam la jox noonu dagar na ci yow ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan nañ ko indil lekk yonent bi sallallahu alayhi di ci lekk te ñëpp xam nañ ne yahud seen lekk yi bu ñuy rey duñ tudd yàlla waaw waaw moo tax yonent bi sax di wax ne bu ñu la lekk goo xam ne sikk sikk nga ci ne borom ba mu rey tudd na yàlla wala tudd yàlla tuddal yàlla rek daal di lekk pour nga xam ne dafay yombal diina ji waaye mënoo nekk xóotal diine lu ñu la indil nga ne da ko lijjanti su yàggee boo sonnee yaa sonal sa bopp parce que boo ku jeex rek gis waaw boo lijjantee ba ci biir amaana nga gis loo xam ne nii dana la tayalloo waaw moo tax li nga xam ne ni yàlla nëbbu na la ko daf la koo nëbbu rek ngir sa maslaxa kon yow bu ci jéem a sonal sa bopp lépp loo xam ne daal indil nañ la ko mu ne tam lënt nga xamoo yëf yi nan la tëddee loolu daal mën nga koo jëfandikoo wax jooju moom la Ibnu Mas'ud wax te borom xam-xam yu bari itam wax jooju ci lañ gën a ànd ci yeneen wax yi mu ne ala inna fil jasadi mudwa mu nekk na ci yaramab doomu aadama bu nekk mudgatun ak lëmm ak lumbu boo xam ne ni isa salaxat su yéwénee salaxal jasadu kulluhu yaram bi yëpp daal di xéwén wa isa fasadat bu yàqoo fasadal jasadu kulluhu yaram bi yëpp daal di yàqu ñu ne ko loolu mooy lan mu alaa wa hiya al qalb lu daal mooy xol yonent bi sallallahu alayhi nit ku ne am na lu nekk ci yaramam boo xam ne ni daanaka mun ngaa wax ne mooy moteur yi yaram bi su baaxee rek yaram bi baax su yàqoo rek yaram bi yàqu ni ka nga xam ne noonu la moteur nekkee ci oto bu baaxee mooy oto daanaka kees bi amul njëriñ bu baaxee oto bi baax bu yàqoo kees gi lu mu rafet rafet itam oto bi amatul njëriñ su kay waxoon nañ bu yàgg yàgg ne xol mooy buur ci nit ki cër yi yëpp ay soldaaram ay soldaaram lañ dañ koy dañ koy déglu dañ koy liggéeyal ndax nit ki lépp lum jug pour def ko muy lu baax muy lu bon ci xol bi la jugee waaw sa xol moom mooy jox sa cër yi ordre yi ñu war a def tey jii tey nit pour nga mën a dóor nit wala nga saaga ko wala nga song ko dafay fekk sa xol mer sa xol bu meree ba tàkk ba nekk safara wala ne la da ngaa war a def raddati feel mooy waral cër yi ñoom itam jug ànd ak xol bi ci mer yooyu di def ay yëf xol bi su fekkee ne merut cër yi mënuñoo def dara kon moom mooy buur bi nga xam ne nii cër yi ay soldaaram lañ moom moo leen di jox ay ordre ñi di ko def moo tax bu sayri ba muy tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci bi waxoon na ne ida xallatil hidayatu qalban nachatat lil ibadati l aadaaw maanaam yàlla bu demee ba jël xolab jaam def ci njub mu ne cër yi yëpp dañuy sawar ci jaamu yàlla nit koo gis nag sawarut ci jaamu yàlla xol bee bañ waaw ndax kol am na benn xakim buy wax mu ne mooy postu postu nit ki maanaam xol bi moom su su baaxut yaram bi dara mënu cee baax xol bi su baaxee yaram bi yëpp mën naa def lu baax mer kontaan yëpp ci xol la aju moo tax yàlla wax ne man xajuma ci kaw asamaan xajuma ci kaw suuf waaye xaj naa ci sama xolob jaam bu gëm ñu ne nag xol ban ndax lu xonq loolu nekk ci doomu aadama rek la wala leneen la ñu ne lu xonq loolu nekk ci doomu aadama danay dundal nit ki waaye xol biñ na dëgg-dëgg latifa la boo xam ne ni yàlla moo ko def ci doomu aadama waaw du lu xonq loolu rek ngay gis lu xonq loolu mën naa am poste la boo xam ne dana circuler deret ji joxe ba nit ki mën a dund ak yii nii waaye dafa am beneen xoli baatin boo xam ne moo nekk ci nit ki mooy latifa boobu nga xam ne nii mooy def loo nit ñu ne loolu la yàlla jublu ci loolu ci wax ci wax jooju mu wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee bi mu waxee loolu ñu ne ah kon xel lan lay jëriñ ak xel kon fan la ne am beneen xadis boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne xel wala baati baati xadis bi zaahiram li muy firi mooy ne xel ci xol la nekk te loolu dafa wuuteeg médecine ndax médecine moom li ñu xam mooy ne xel ci yuur la nekk yonent bi sallallahu alayhi wax ci xadis boobu ne xel ci xol la ne ñu ne kon ñaari wax yooyu nan lañ koy déggee ñu ne waxi wuute wut yuur gi mux bi liggéeyam mooy dafay tëbbu mooy tëbb xol bi bu bu tëb bu tëbee xol bi xol bi daal di liggéey dafay mel ni ne liggéey bi nit ki di liggéey ci xol bi la jugee waaye ñoom ñaar ñoo koy ànd daf waaw yuur gi yuur sumu force tëbb xol bi xol bi bëgg ndax léeg-léeg nit mën ngaa xalaat lu baax nga xam ne lii nii lu baax la lool xam nga ci sa xel la jugee waaye bu sa xol nanguwut pour nga def ko mënoo koo def waaw bëri na bëri na ñu bari ñoo xam ne ni danañu bëgg a def dara xalaat ko ba pare mu mel ni dañ leen a tënk xol ba xol xol bi moo ci nangu moo moo ci àndut bu yuur gi bu yuur gi xalaatee ba pare ba joxe ba joxe ordre ba tëbb xol bi force xol bi nangu nit ki mën a dem bu xol bi nanguwul rek nit ki du dem lool loolu rek la yonent bi jublu ci ne e, xel ci xol yi ci xol yi doomu aadama la nekk am na ay aaya yu bëri yoo xam ne ñëw na di wax ci même façon maanaa boobu maanaam comme awalam yasiru fil ardi fa na bi qulubun yaqiluuna biha aw aadaanun yasmauna biha ndax doxuñ ci suuf settantal ba am ay xol yoo xam ne nii danañ ci mën a xeloo li yàlla def ci suuf ñu ne ah kon yàlla wax na foofu ne qulubun yaqiluuna biha kon kay xol moom mooy eh, xel ci xol la nekk xol moom mooy xalaat ba léegi dàquwante wut ak li waxoon loolu la rek xel mi yuur gi mooy tëbbu xol bi bu ko defee mbir mi daal di mën a sotti barhaamu baun waraun alifun thumma ha mimun mujjal faydu tiijaan jox ñu ñuy naan